Bah Diakhaté donte xamaguñu lan moo ko waral dëgg-dëgg euh, c'est aussi le cas pour euh, le journaliste Adama Gaye bon interprétation bu ñu fi def mooy euh, sénégalais yi chaque jour dañuy am dañuy am mbetteel ñoom depuis le 24 avril ba ñu jëlee pouvoir bi ba léegi mars jëlee pouvoir bi mbetteel dafa am parce que lu tax ma ne mbetteel mooy ay injure publique mooy luñ lu ñu jàppee ñoom Amine Suzanne ñoom Bougane ñu jàppee te tamit Moustapha Diakhaté ak ñu jàppee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu des jàppaguñu donc dafa nekk loo xamante ne ñoom ba ñu nekk si opposition bi. Mm. loolu lañ doon xeexee pouvoir bi fi nekkoon rawatina euh, le président Macky Sall. donc yaakaar naa ne ñoom bu ñu jëloon pouvoir bi bu ñu ñëwee rek. Mm. yaakaar naa loolu waratul waratul am donc ñoom rupture bu ñu doon prôné wala ñoom lu ñu doon wax sénégalais yi jox leen ñu euh, dëkk bi bu ñu koy bu ñu koy jëlee dëkk bi dinañ ko teg si yoon dinañ ko def lii def lii yaakaar naa ne loolu ba tey gisaguñ ko donc man jàpp naa ne rupture amul. parce que ñoom li ñu daj rek si Macky Sall rek waloon na tax sax ñoom képp ku ñëw wax sa xalaat man dama jàpp ne wax sa xalaat la parce que day Sénégalais yi dafa am liberté d'expression boo xamante ne léegi Sénégal démocratie bi yegg na foo xamante ne nit ñi kenn mënutu leen tënk réseau sociaux yaa ngi fi télévision yi bari na nit ñi plateau yaa ngi fi ku nekk yaa ngi wax sa xalaat kenn mënutu leen tënk. Mm-hmm. nit ki boo ko invité wala mu nga tàll ko micro wala moom mu toog. téye tey iPhone am def benn live hmm. munoo ko tere mu def mu wax yenn yi parce que bu doon loolu la rek yaakaar ne am na ñu bokk ci ñoom hmm. bon mun naa bañ a tudd Trump parce que ñëpp gis nañ ko fi parce que début bi saaga na fi président de la saaga na fu mu bokk ba léegi dala topp ko si ñoom ñoom it tey si campagne durant la campagne électorale ñoom si ñoom am na ñoo xamante ne tey jàpp nañ ay saaga yoo xamante ne mi ngi si réseaux sociaux yi. Hmm. saaga nañ ko ku mel ni tey Barthélémy Dias saaga nañ ko loolu yëpp nekk la loo xamante ne tey procureur mën na autosaisir si loolu yëpp mais dafa ko ñoom à leur côté. Hmm. kon ko defee ñoom ñu jàpp leen woo man yaakaar naa ne ñoom lu ñu waxoon ak sénégalais yi ñu si ñu ngi si wàcc donc comme moom xale bi ñu ko waxee nee na loi yi ak règlement yooyu ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk. waa loolu la wax ñoom léegi am nañ majorité comme moom lu mu prôné. peut-être ñoom bu ñu amee majorité bi. am na ñoo xamante ne ko changer ku ku ku ku saaga ñu bañ tëj beneen bi mooy code de la presse aussi ñi gaaw ñoom it ñi tënk ko génnee ko parce tey tey bi moom kenn mënul tere presse bi def rôle am tey presse dafa bokk ci démocratie mu am beneen pouvoir. Mhm. tey xool nañu tey ñoom am na presse yoo xamante ne ñoom bëgguñu sax presse bi waxati am na ñoo xamante ne ñoom jël na leen à leur côté ñu leen jox lu leen àndul ñoom wala ñoom arrangé wu la. di leen la teg fitna wala ñu jëm la indil avertissement wala ñu jëm la convoquer cybercriminalité wala procureur autosaisir yenn dossiers yi yaakaar naa ne daal à l'heure où daal ñoom lu ñu waxante woon ak Sénégalais yi respecté wuñ ko parce que loolu fekkoon na respecté nañ ko wala ñoom ñu ngi si biir si la xam nañ lan moo si nekk prison xam nañ lan mooy convoquer si ay nit xam na nañ famille ñooñu lan la ñuy def ñoom yaakaar naa ne ñoom waruñu woon tey def loolu mënoon nañ def de telle sorte que nit ki. ñu ne ah ñun de ba ñu jël pouvoir bi. Mm. ñun li ñu leen doon wax mag Sall wax nañu lu pire lii moo ñu si fekk mais tey ñun ñoo ne ñun bu ñu yàlla joxee réew mi lii dootul amati mais malheureusement ce son les mêmes pratiques. les mêmes décisions les mêmes démarches moo fi amaat kon ba nii ñuy wax rupture amul lu Macky Sall doon def ñoom it moom la moom la ñuy def. est-ce que tam waaw justement foofu laa doon ñëw est-ce bi nekkul tey ci tànku fay Ousmane Sonko li ñu jàpp ne mooy mooy li mu leble maanaam une opposition radicale bu dul mayee dara buy parfois même jéggi. waaw les limites. bon parce que su fekkee ne da ngeen doon wax en tant que ku nekk au pouvoir que Ousmane Sonko opposant li def jaaduwul yéen su ngeen ñëwee opposition aussi waru leen ko répéter. waaw non comme lu ma wax rek dama ne tey démocratie Sénégal toll na foo xamante ne euh, léegi nit ñi kenn mëntu leen tënk. muy opposition radicale wala nga ñàkk opposé mm-hmm. sénégalais yi léegi boo yoree boo yoree nguur gi yor réew mi moom noo wax ne wax seen xalaat soit si dañuy toog plateau wax ko wala ñu dem si réseaux sociaux yi wax ko mm-hmm. léegi nag peut-être ñoom am na nañu majorité dinañ jéem a organiser loolu yëpp de telle sorte que yenn dérive yi amati mais sénégalais kenn mënu leen tënk parce que moom lu mu doon def ba jot nguur gi. les autres feront feront la même chose pour récupérer le pouvoir bi te loolu aussi mënu munu ko bañ au contraire. au contraire moom lu mu def ba ñi ñi comprendre am na ñoo xam ne comprendre na def na lii ba am ba accéder au pouvoir les autres le feront feront le pire aussi pour accéder au pouvoir. donc jàpp ngeen ne la stratégie Sonko elle est payante. bon elle est payante du d'un côté. elle est payante d'un côté kon da di imiter. non pas imiter. bon pour pour man man dama jàpp ne lépp démocratie la woon. pour man sax même temps Macky Sall temps yu yu yu Sonko doon def sax mënoon na ko bañ topp si yooyu mënoon na xool mu ngay arrangé topp mais dama jàpp lépp si démocratie la léegi sénégalais yi mu doon tënk da il faut ñu wax si seen seen xalaat. Hmm. beneen bi mooy. le procureur de la république aussi ministère de la justice bañ a bañ ko jox ay ay damal jàpp diw damal gis diw yow aussi dafa nekk pratique yoo xamante ne ñoom ñoo noonu dafa bokkoon ci lu ñu wax moo tax gars yi fal leen à 54 pour cent. Mm. loolu il faut il faut ñu éviter ko. donc tant que moom allié la aussi bu demee ñoom bu ñamee seen biir na leen wax ñoom ñu dundu ko bon lu mu wax aussi boo xaw na delxal mais ba nii ñuy wax daal les mêmes pratiques les mêmes résultats moo fi am. moo fi lu amoon rek moo fi am ku wax loo xamante waroo ko wax wala ngay. ngay xam ne so commencé nañ la sonal ñu ñëw jëm la xokkatal wala cybercriminalité wala ñu ne saaga nga lii def nga lii pour ñu rek noppaloo la. donc a une main politique derrière. non si y a une politique derrière parce que tey lu Adama Gaye wax wala Moustapha Diakhaté euh, nekkul extraordinaire loo xamante war na leen woo ay cybercriminalité pour pour kii leen parce que ñoom dañuy toog si ay plateau wax seen xalaat comme ñoom dañ ko doon def temps Macky wax seen xalaat ah, yaakaar ko toog en direct saaga Sonko wala saaga Diomaye si ñooñu mais ñoom wax nañ seen xalaat. léegi nag si wax xalaat yooyu ñoom dañuy dañuy bëgg a convoquer leen pour bu leen waxte si seen xalaat noonu parce que Sénégal yi tant que ñoom ñu ngi wax Sénégal yi ñu ngi déglu dañuy bañ éveiller Sénégalais yi peut-être ñoom it ñoom ñu doon def bëgguñu ñee def ko pour Sénégalais yi comprendre bon parce que ñoom it euh, que qu'on puisse dire am na manipulation yu ñu doon def. peut-être ñoom dañuy fondre les les mêmes pratiques yu ñu def noonu ba mu fay ñi bu ñu ko defee dañuy perte le pouvoir moo tax ñuy jéem a xokkatal nit ñi mais Sénégal moom c'est une perte perdue. Hmm. lu ñu gën dem rek Sénégalais yi di gën a wax seen xalaat. beneen bi mooy les réseaux sociaux sont là les lives sont là à CD e sont là ñi ñi kenn mënatu leen téye et puis le monde ainsi fonctionne comme ça. Hmm. le monde fonctionne euh, comme ça Khalil euh, ñu ngi génn ci ay élections législatives euh, yoo xam ne sànq la commission nationale de recensement des votes joxe résultats provisoires yi en attendant les résultats définitifs yi conseil constitutionnel war a joxe seen victoire ñu confirmer ko bien sûr avec cent trente députés au total vingt neuf sur la liste nationale cent un siège ci départemental liste départementale yi nga xam ne demoon nañ ci jongante ban interprétation nga def ci seen victoire bi lan mooy expliquer aussi ngeen am autant de sièges euh, même yéen a ngi doon séntu plus parce que yéen a ngi doon taabale ci cent cinquante donc vous êtes à cent trente ça veut dire que objectif yi atteindre leen ko bon waaw mën nga gis ni peut-être objectif yi atteindre nuñ ko mais hmm. man je di dis que vraiment euh, euh, Assemblée nationale 165 députés la boo demee am 130 députés. Mm. dans l'histoire je pense que c'était en 2007 mm. le. Hmm. Euh,